Cheikh euh, Bara euh, Ndiaye ana lan euh, ngeen di si daal di xaar am ngeen yaakaar ni bu paree fii dina ñibbi ci li nga xam ne nag moom moo di këram ci fàttali rek moom Cheikh baara lu mu koy toppee mooy diffamation maanaam waxal nit loo xam ne tey jii amul wala yàq li nga xam ne nag moom mi ngi noonu Cheikh Bara voilà mi ngi noonu mi ngi noonu di dugg si euh, ci li nga xam ne nag moo di ci ci ci ci dikk gis ngeen euh, daanaka euh, écran bi oto yi fi mu gaare moo tax mun am bu baax a baax yii les images alors nu jël ki nekk si ligne bi asalaamaaleykum. sëñ bi ziar nan la. waaw Binta Diallo Binta Diallo soxna nan la. <laughs> <laughs> daan joxe. bisimilah ñu ngi lay man je suis patriote à 1000 pour cent 10 000 pour la parce que man Sonko dama koy yëg suma biir yaam. man des fois damay seetaan place bi damay sape man maa koy retrouvé man itam bëgg bëgg bëgg. am na yoo xam ne aussi je suis pas fort. maanaam dafa xam ne dafa dañuy déborder plateau télé yi toujours bëgg nañ ngeen mais léegi nañ wax man sincèrement je suis avec ça mhm. wax mhm. man loolu moom 你好。 yaay Boy. jaajëfal nañ la bu baax a baax macha yi rafet na di ko jaajëfal bu baax a 70 903 33 85 alors Cheikh Bara agsi Legui, léegi daal dinay dugg ci locaux li nga xam ne division des investigations criminelles nu war ko déglu ci plainte bi nga xam ni ci plainte bi nga xam ni 13 Faye daal dina koy def alors ci wàllum soutien ñu ngi ciy gis ñu ñu ñu am solo.